ngeen baal ma àq nag ma dem ci bokki jullit yi ak bokki talib yi nga xam ne ñoo fi teew nuyoo ñoom waxtaan ñoom waaye yéen daal li ma leen jottali mooy sama cant ak sama ñaan te lu wér la ci man asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne teew ngeen fi yëpp yéen bokki taalibi yëpp yéen bokki taalibi yi murit yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant kilifa yi diine yépp yëpp yëpp amul ràññale amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di sant ndax ku ci nekk rek say ndaw teew na fi yu mati ndaw yu ma won ni jàppale nga ci li mu ne na li ci ko saxaw ñi nga xam ne ay kilifa la tey doon kilifa yi diine te seeni ndaw mënu fee teew wa mënuñu fee teew waaye seen ndaw teew na fi yépp nañu xam ne ameel nañ leen cant ameel nañ leen ngërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla boole ñu dimbali gannaaw loolu nag yéen bokki taalib yi mënuñu leen waxtaanu yéen waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du lii la jublu woon a wax mbaa lii la lii la fasoo woon a wax mbaa lii wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen ni leen nun ay morit la te du ñu yam dong sax ci doon ay murit ay saarix la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi sosee murit it Touba ji da koo sos tuddee ko ba tudd euh, jëlee ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee nag Touba li ab di muridin saadixin texe ñeel na bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci li ab murit di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yëpp def ko te benn bu ngeen ci defan mu doyu sëpp may leen la ngeen bëgg kon da nga mën a waat ay saadix ngeen. dana mën a war ne li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw adiyaati la wax te yooyu yëpp maasa ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la man lépp kon nag seenu saadax moom mën naa koo seere fu ne ma di leen yëgal nag ni leen nun Sëriñ Tuuba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll Sëriñ Tuuba amul man na dal fa ne di bërëmu waye bu yegsee fi seigne touba fa lay yam kon nak ngeen yeng ni euh, seigne touba moom mu nga xamne kep ku koy jox sa bop dang koy wax ne ko jébbal na la sama bop adina jébbal na la ko alakhira momit mu wax ne kep ko xamne ñew nga fi man te adina andi la fi jaaxaluma ndax yalla jox na ma ba doy sëkk te ma ci dara ku ko fi mu ci am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne andi na la fi loo soxla mënal naa la ko te dinaa la defal wax ne kenn rek moo mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na ma koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def na bëriwul kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa bopp àddina ak àllaxira mu mën a loolu na tey ak ëllëg ah, war ngaa góorgóorlu nag ci xam ne jébbal googu nga ko jébbal sa bopp mu nangul la ko doyoon na sëkk teraanga ci seen diggante doyoon na ab saak seen diggante bu wëlbatikoo nag kenn ci ni ko ne mu teral ko teraanga joo xam ne gor ya daa ni koo ku leen teral ñu ne yàlla na nu sa bis ba jaay ci sunu bakkan fukkeel ba te relu monsieur su leen koo teral mu teral ko kon nag te am bis bi war a ñëw te ñëwagut war na noo baxel bis bi di ci góorgóorlu te dara mënu koo tee ñëw te bu nu wéyee ci ndigalam di ko sàmm li muy tere nu di ko sàmm bu nu ci yeggeen bisu ndam rek lay doon ci ñun léegi nag man day def bu ma waxee ci kaw ñu ne day xuloo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer ma di leen xamal nag ni leen xuloo ak mer duma ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko rek ay xuloo te man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoola du xuloog mag du ma xuloog ndaw njër yi war a tax a xuloo moom du jaar sama digg ak kenn xëccoo njariñ wala xëccoo daraja moom da ngay téye déggoo ba wax tax di xuloo te waat na ci ni du ko def kenn